a besoin de paix. Mm-hmm. Ouais. Ce pays a besoin de paix. Ouais. Ce pays a besoin que chaque citoyen dugal ci loxoom pour jàmm am. Mm-hmm. citoyen foo mënti nekk nag dama koy tàmbalee ci autorités religieuses yi ba ci ñi gën a suufee ku ci ne war nga cee dugal sa loxo pour dëkk bi am jàmm parce que waruñoo bàyyi un groupuscule de personnes parce que simplement dañu bëgg a préserver seen ay intérêts bëgg a taal suñu réew loolu nag. jàpp naa ne ñun ñoo war a am fulla ju toll ni lu mu leen jaral pour taal réew mi mu jaral ñu ko pour fay ko. pour fay ko pour fay ko nag ah il faut que ñu wax leen li ñu war a def nag. merci li ñu war a def d'abord mooy nañu génnee xale yi ñu jàpp ci kaso yi xale yi nga xam ne dañ leen a tooñ dugal leen ci kaso yi nañ leen génnee je pense notamment à Babacar Ndiaye à Fadilou Keita à Nit Dof à à Diop et cetera Diop Taïf ak Ndongo Diop ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne dañ leen a jàpp. loolu mooy la première condition la deuxième condition Macky sàll na xam ne nguur day jeex amatul pour def beneen candidat pour déposer une autre candidature même bu ko defee tamit na ko wóor ni il va à sa perte sénégalais yi wan nañ ko ginnaaw ba pare. merci. donc pour vous dire simplement que réew mi jàmm la soxla maa ngi j'appelle encore une fois. jàmm ci réew mi tey